laa xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu mbokk jullit yi ñu ñëw ak yéen ci téere bu ñuy wax duruusu lugatil arabiyya li ghayril naaṭiqiina bihaa tey nag ñu ngi ñëw ci juz'u saani mooy xaaju ñaareel ñu bokk jàng insha Allah ñu ngi ci njëkk bi premier dars bi ne darsu awal li mooy darsu bu njëkk bi nag ak almudarrisum ak ak ak jàngalekat bi ñoom ñaa waxtaan léegi fu darsu bi commencé moo nekk xisaab wax jàngalekat bi ne ko asalaamaaleykum wa ma ne ko assalaama jaamu aleykum yàlla na nekk si yéen wa rahmatullahi yërmaani yàlla wa barakaatuhu am barkem jàngalekat jàngalekat bi daal di koy fay ne ko wa aleykum salaam wa aleykum yàlla na nekk si yéen assalaam jaamu wa rahmatullahi yërmaani yàlla wa barakaatuhu ak te nuyoo boobu moo gën si nuyoo Hisham daal di koy wax kayfa xaaluka na nga def yaa ustaaz yow yow ustaaz laallaka bi xayr amaan na yaa ngi si jàmm laallaka soo soo ko déggee maanaam mooy amaan na léegi mu teg si bi xayr mooy yaa ngi si jàmm mu ne ko laallaka bi xayr amaan na yaa ngi si jàmm jàngalekat bi nga ko alhamdulillah sant yàlla wa kayfa xaaluka na nga def yow tamit anta yow yaa Hisham yow Hisham man ko ana man uhibbuka ku la bëgg laa kasiran lu bari yaa xisaam yaa xisaam innaka naka yow taalibun taalibe nga zakiyun ku ñaw wa mujtahidun ak kuy góorgóorlu wa zu xuluqin ab borom jikko loolu la ko Pakistan ndax yaa ngi jóge Pakistan anta yow am hindi wala yaa ngi jógee hindi yaa xisaam yow xisaam xisaam ne ko inni naka man minal hindi maa ngi jógee hindi zamiluka ak sa morom mu ne ko nga xamante ne xaaja génn na maa ka àndal yow al'aan léegi mi na fas jógee si kalaas ahuwa ndax moom aydan ba hindi ahuwa ndax hindi saamune ko la déedéet innahu naka moom minam Pakistan mi ngi jógee Pakistan almudarisu mooy jàngalekat bi ne ko inna saataka naka so montor bi jamilatun aji rafet la yaa xisaam yow xisaam aminan ba yaabaan ndax mi ngi jógee yaabaan ya moom xisaam mu ne ko la déedéet innaha naka moom ina hindi mi ngi jógee hindi almudarisu jàngalekat bi ne ko xaaliyatu ndax daf cher hiya moom am raqiisatun wala dafa yomb xaaliyatun soo ko déggee mooy loo xamante ne moom lañuy wax cher su fekkee lu laaj ci jigéen la su fekk su fekkee laaj dafa cher jigéen la dañ naan xaaliyatun su fekkee dafa góore dañ naan xaaliyun raqiisatun tamit su fekkee lu ngeen dafa dañ ko jigéen dañ naan su fekkee jigéen nañ ko nga ne wax Isa dégg nga léegi Hisaam mu ne ko naka man innahaa naka moom mantu bi rafiisatun dafa yomb jiddan lool innahaa naka moom bi mi'ati ruubiya mu ngi jar téeméer ruubiya faqat dong al-mudarris jàngalekat mu ne kam axan ñaata mbokk laha laka ñaan na la yaa Hisaam yow Hisaam Hisaam mu ne lii ñaan na ma salaasatu ixwatin ñetti mbokk yu góor al-mudarris jàngalekat mu ne atullaabi ndax ay taalibe lañ hum ñoom xisaab mu ne ko laa déedéet innahum naka ñoom tujaarun ay commerçant lañ wa kam uxtan ñaata mbokk yu jigéen laka ñaan na la mu ne ko lii ñaan na ma arbaa axawaatin ñeenti mbokk yu jigéen dégg ndax mi ngi si biir xindi nekk nañ si biir xindi xon na ñoom al aan léegi xisaab mu ne ko laa déedéet inna xon na ñaka ñoom ngi fii بالمدينة المنورة بالمدينة المنورة مع أبي ànd sama baay wa ummi ak sama yaay almudarris jàngalekat bi mu ne ko attaalibaatu ndax ay taalibe lañ xan na ñoom Isaa mu ne ko laa déedéet inna xan na naka ñoom mudarrisaatun ay jàngalekat lañ bil madrasati sanawiya si école yu digg doomi école sanawiya dégg tamrin mu ne ajib tontu an asilati atiya si laaj yi nii ay laaj la waaye yow yaa koy tontu li ngay tontu nag jàng nañ ko si ginnaaw mu ne min ayna Haasim Haasim fan la jógee yow yaa tontu fan la Haasim jógee min ayna saa'atuhum dégg nga min ayna saa'atuhum montuwam fan la jógee la tontu montuwam fan la jógee kam axan lahu ñaata mbokk moo lahu kam axan ñaata mbokk lahu ñaan na ko ñaata mbokk moo ko ñaan tontu ko ay na axawaatu ay mbokkam yu jigéen nga tontu ko mu ne ayu xibbu ndax bëgg na almudarrisu jàngalekat bi ndax bëgg na jàngalekat bi ko tontu ayu xibbu ndax bëgg na ko moom almudarrisu jàngalekat bi nga tontu bi kam xiya ñaata lay jar nga tontu kam waxtaan ñaata mbokk jigéen la ñaan na ko nga tontu yëpp yow yaa koy tontu dégg mu ne da tegal haadihi alaamata bi la ah, mandarga sax te sax amaamal jumlati si kanamu jumla as-saxiihata ñu wér wa haadihi alaamata ak yéen a mandarga xata te mooy xata amaamal jumlati si kanamu jumla allati nga xamante ne laysat nekkul saxiiha ñu wér dégg jumla boo xamante ne wéru rek nga def ko xatam bu ci wér nga def ci saxe dégg mu ne xisaab xisaab taalibun taalibe la kaslaan mu teel xolal wala xata saatuhu monturam raxiisatun aji yomb la nga def ci nga xool xata wala saxe alfi rubiya mu ngi jënde junne rubiya nga tontu axawaatu ay mbokkam bil madinatu munawara ñu ngi ci biir madinatu munawara nga tontu yeneen xisaam xisaam taalibun taalibe la mujtahidun muy góorgóorlu nga tontu saa'atuhu montuuram gaaliyatun aji cher la nga tontu saa'atuhu montuuram bi mi'atin rubiya mu ngi jar téeméeri rubiya nga tontu axawaatu ay mbokkam bil hindi ñu ngi ci biir hindi nga tontu den yëpp ngay xool doo sax waaye dama juum maanaam bu ci nekk rek ciy def sax su fekkee sax la war a am bu ci nekk nga def xata su fekkee xata la war a am dégg nga mu ne te amal seetala maa yeli lii ni luy dikk maa yeli su defal fii in léegi ma def fii huwa léegi nag euh, soo ko boole dag in moom naka lay firi léegi nag soo ko euh, damiru ku góor ku fi nekkul day daan doon innahu mu nekk innahu naka moom dégg su fekkee nag in danga ko boole hiya mooy jigéen ku fi nekkul dag naan innaha naka moom ku jigéen ki su fekkee in danga ko boole anta yow ku góor ki nga jàkkaarloo boobaa dang naan in naka naka góor ki ma jàkkaarloo su fekkee nag in danga ko boole anti mooy yow ku jigéen ki ma jàkkaarloo dang naan in naki eh, naka yow ku jigéen ki ma jàkkaarloo su fekkee in danga ko boole yow mi wax ana dang naan in na nii naka man wala nga ne in in naka man dégg su fekkee nag in danga ko boole ah, hum muy ñu góor ñu fi mbooloo bu góor bu fi nekkoon danga naan innahum naka ñoom mbooloo bu góor bu fi nekkoon su fekkee nag in danga na boole hunna ah, danga ko boole hunna mooy mbooloo bu jigéen bu fi nekkoon danga naan innahunna su fekkee nag in danga ko boole ah, antum mooy yéen mbooloo bu góor bi ma jàkkaarloo danga naan innakum naka yéen booloo nga bañ a jàkkaarloo fekkee nag in danga boole an tunna yéen mbooloo bu jigéen bi ma jàkkaarloo dag na inna kunna yéen mbooloo bu jigéen bi ma jàkkaarloo su fekkee nag in danga boole eh, nahnu comme ñun ñun mbooloo bi dag naan innana naka ñun mbooloo bi wala nga ne inna naka ñun soo ko boole damir bi dag naan eh, ana inni wala nga ne innani nahnu inna wala nga ne innana anta nga ne innaka anti innaki antuma innakuma antuma innakuma antum innakum antunna innakunna huwa nga innahu hiya innaha huma innahuma hum innahum hunna inna hunna dégg kon noonu lañ koy boole ak demee yoon mu ne fii nag yow yaa dugal in comme niñ ko jàngee woon si ginnaaw mu ne adxal dugalal in inna ala jumalati huwa moom taajibun kamin saala wax na moom kamin saala hum ñoom mina yaabaan ñuy liggéey yaabaan dugal si in hiya moom mutazawijatun dégg mutazawwijatun boroom jëkkër la antunna yéen mbooloo mu góor bi ma jigéen bi ma jàkkaarloo mujtahidatun way góorgóorlu ngeen dugal si inna anta yow rajulun góor nga buris dugal inna ana man taliban taalibe la inna antum yéen mbooloo mi asgira ñi ñëw ngeen inna naxnu ñoom muslimoon ay jullit lañ dugal ci na hunna ñoom muslimaat ay jullit lañ dugal ci inna anta yow zaki anti yow ku jigéen ki zakiyatun ku ñam nga nga dugal inna dégg nga yaqra jàngal al amsilata atiya misaal dikk ah, dégg nga misaal yi di dikk danga ko jàng al mudarrisu jàngalekat almudarris jàngalekat bi jadiidun aji bees la dégg nga léegi soo soo soo si dugalee inna dag naan innal mudarrisa yaa ngi gis ndaxte in dafa bokk ci dafa dafay nasab lisim dafa fa xabaar mbokk bokkut ak kaana lu mi def inna ak mokkam dañuy rafa lisim di nasab xabaar dafay nasab lisim di rafa xabaar dégg moo tax waaye doo wax innal mudarrisu dang na innal mudarrisa fatima fatima tabibatun docteur la dang na su doyle inna fatimata dégg nga hamin hamin mutazawwijun borom jëkkër la borom jabar la mutazawwijun borom jabar hamidan ka hamin mutazawwijun borom um jabar la dégg kon noonu nga Fii nak yaa ngee maasal sa boopu, danga duga si inna, mu ne "Atakad dugal inna inna alaa jumla yi dëkkuwaay bi nga maas aaxira kalimaati mujjanti baat, mujjanti baat yépp yaa koy maas. Almudarrisul jàngalekat bi ah, dagg, ad-darsu, darsu bi, sa'bun aji jafe la. dugal si inna te nga maas ko alquran alquran kitaabullahi téere yàlla la amina amina taalibatun taalibe bu jigéen dugal si inna dégg nga te bi la montor aj cher la dugal si almudir directeur bi fil fasli ngi si biir classe bi dugal si inna sayyaaratu oto aj rafet la dugal si muhammad muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla dugal si inna kamaas muñ ko kamaas kon ni nga ko war a maasee luxatun langa arabiyatun arab saxlatun aji yomb la dugal si inna nga maas ko bilaad bilaad ganiyun aji ris la dugal si inna nga maas ko almaa ndox mi baawinu aji sedd la dugal si inna nga maas ko léegi nag asayyaaratu oto bi jamilatun aji rafet la léegi nga dugal si inna jamil tun aji rafet la kon siyaaratu kese moom ngay defar maanaam moom ngay moom ngay changer masque bi waaye jamilatun moom noonu nga koy kon inna ak mbokkam ñoo ñëpp noonu kaana moom moom mooy rafaa lisim nasab xabar waaye inna moom in kaana ak euh, nasab xabar waaye inna wa kaana ak i mbokkam ñoom dañuy rafaan lisim di nasab xabar waaye inna ak i ñoom ñooy eh, nasab lisim di rafaan xabar dégg fii nag ñu misaal waaye yow yaay yeggal eh, yëpp te am seen tatala al misaal ay ñaari misaal suma kawin topp nga forme jumla bi ak jumla comme ñaar misaal minal mu ne misaal awal mooy misaal bu njëkk hindi ndax yaa ngi jógee hindi ante yow am pakistan wala yaa ngi jógee pakistan dégg mu ne na tabibu ndax docteur la ante yow amin am muhandisun wala ingénieur kon ñu ñun yëpp comme nan nga xay defee mu ante yow waxal ndax kuy mujtahidun kuy góorgóorlu la wala kastaanu ko teeru hiya moom eh, ndax eh, eh, siin mi ngi jógee siin wala alyabaan mi ngi jógee yabaan anta yow anta yow ndax tabibatun anta yow ku ka ndax tabibatun docteur bu jigéen nga wala mumarridatun sage hum ñoom ndax nasaara ay nasaara ay nasaara lañ wala yahudan ay yahud lañ hada ke hada li masjid ndax masjidun jàkkala wala madrasatun wala madrasatun école la dégg ne hadihi sayyaratul mudir ale oto oto directeur bi la wala sayyaratun mudarris wala jàngalekat bi mu ne anta yaw mutazawwijun boroom jabar wala azabun célibataire nga hunna ñoom xalaatuka ndax say xalaatuka say tante wala ammaatuka say bàjjen huwa moom ndax bi kaslaan Pakistan mu ngi jóge Pakistan wala eh, Iran mu ngi jóge Iran baytuka baytuka sa kër ga ndax lu xaribun lu jege la wala baidun lu sori la kon noonu nga fay defee mu ne taamal seetata misaalayni mu ne taamal seetata misaal aatiya misaal yi dikk zo suñ ko waxee moom mooy jikko zo moom la ñuy wax borom maanaam la ñuy wax borom moom moom loolu la jàngale si mu ne mu doore na suñ directeur bi zu xamatin borom taxawaay la tawilatun njool dégg mu ne haza daftar bi nekk zu waaxin boobu foy la bu ñu wàdd mu ne ahmad ahmad taalibun taalibe la zu almin borom eh, xam-xam wa xulaqin ak jikko haza alxamis bi ne simil zukum borom xasimun bu gàtt wa zalika ak bee zuukum borom loxo boobu la wa tawilun buy gudd dégg mu ne almasjid allazi jàkka ji nga xamante ne fii xayina muy suñ biir quartier zu manaratin bom sora la waxidatun benn dégg mu ne iqra jàngal al amsilata al misaal al amsilata si misaal yi ni suma xawee tam nga su ma xamee topp nga changé al jumlata aatiya jumla yi dikk misaal comme moom dégg nga nag yu si kaw ni mën nañu ko waxal ay suuf yo yaa koy def defal sa bopp mooy yi suuf yow yaa koy defal sa ne haaza taalibu bi la taalibe zu xuluqin borom jikko la dégg ne haazihi taalibatu bi la taalibe bu jigéen zaatu olorin borom jiko la su góor la dañ naan zu ngay wax su fekke la dañ naan zaatu dégg nga ne rajul bile góor zu maalin borom alal la kasiran kasiran lu bari dégg nga la moo tax mu wax zu su nekkoon jigéen dañ zaatu benn góor zou lañ koy wax waaye benn jigéen zaatu lañ wax mu ne haa'ulaa'i tullaabu ñi lay taalibe zawu xulufin boroom jikko lañ gis nga fi lum moo tax mu wax zawu xulufin dégg kom su fekkee mbooloo bu zawu ngay wax boroom ذووا خلق بام جيكولو دين هؤلاء الطالبات ينين طالبين زوات زوات خلق نيوا دين زوات خلق zawaatu xulufin borom jikko lañ dafa nekk jigéen mbooloo jigéen moo tax mu zawaat dégg nga waaye yeneen ñaar yi ni yow def benn mbooloo bu ak benn mboolo bu jigéen fii na nga def ka benn boo xamante ne góor la mu nekk nga ani zawu ak zaatu ak zatu dégg nga ak kon mu ne adafil dugalal laala laala ala jumlat aatiya si jumla yi dikka bi almal nga xam bi anna bi anna laala an joxeel dugalal la àlla la àlla ala jumla aadiya si jumla dika ilman na nga xam bi an la àlla naka la àlla min axawaati inna mi ngi bokk si bokk inna kon yi ni nag yow yaa dafa maanaam li ngi si ani mooy la àlla ngay ani xam la àllaka bi xëy la àllahu bi xëy maanaam ñu si jàpp kon noon nga xëy comme ni nga ko jàngee sànq mu jox la bi xëy moom mi ngi si jàmm dugal si laan la hiya moom bi xëy mu ngi si jàmm dugal si laan la anta yow bi xëy yaa si jàmm dugal si laan la anti yow ki jigéen ki bi xëy yaa ngi si jàmm dugal si laan la ana man naajihun aji admi la nga dugal si laan la hmm. almudir directeur bi fil xufati mu ngi si biir saala dugal si laan la hun na ñoom bi xëy ñu ngi si jàmm si laan la hun na ñoom moom ñoom ñu góor ñi bi xëy ñu ngi si jàmm dugal si laan la hun na ñoom bi xëy ñu ngi si jàmm dëgg si laan la antum yéen mbooloo bu góor bi xëy yéen si jaam dëgg si laan la antunna yéen bu jigéen bi xëy yéen si jaam dëgg la nahnu ñun naajihuuna aji armé lañ dëgg si laan la al ixtibaar suñ ko booye saxlu aji yow la yi nu yëpp yow yaa si dugal laan la dégg iqra jàngal al misaalayni بوضع بوضع عال عال أم أو خالية ولا خالية في, في الأماكن الغالية سباق ببيت في نيل riyaasiteg lu ci dugg bu ci wara dugg benn maanaam mën na doon xaalin wala mu doon xaaliyatun waaye bu mu ci doon rek dugal ko ci mu ne haajal qalam bila bik gaalin ay seexla asluhu cosaalam gaaliyun gaali dégg ne haadihi saacatu bila monto gaaliyatun aji seer dégg mu ne alkitaabun arabiya tira arab nga dugal gaali wala gaaliyatan fi baladina suñu dëkk min hazal kitab bi la teew wa la wa zalika ak leer nga wala xaaliyatun min hazal mu'jamu bi la dictionnaire bi rubiya mi ngi jar téeméer rubiya deng huwa moom nga ne wala xaaliyatun deng hazihi aqibatu bi saat nga waxal xaalin wala xaaliyatun deng kam nga koy defe ñu ni ñaay misaal suma xaw topp jàng al jumla aatiya seen jumla yi dikka ba'da zaalika gannaaw lool atbaa nga bind maan kitaabatin ànd ak limu téere mune ànd ak bind limi mune fi nak eh, daf la jox ñaari zero ak benn an moom lañu wax mi at moom mooy téeméer léegi nak soo bëggee wax téeméer góor danaan mi atu rajulin mooy téeméer góor soo bëggee na wax téeméer jigéen dag naan mi ato imra atin jigéen waaye mi at nag soo wax baat bu si tegu moom mufrad lay doon du nekk jamo mufrad lay doon ta mujj gi dañ koy kasa nag moom li ñuy waxe junna la waxal fii fii daf la jox ñett zéro ak benn un moom lañuy wax alf alfu suñ ko waxee moom mooy junne moom mooy mil waaye alfu rajulin mooy junne góor boo bëggee wax junne jigéen nga alfu imraatin junne jigéen lim yëpp loolu laa koy def kene añ di nekk na si nga wax junne jox na la ñaari zéro ñetti zéro ak benn dollar dollar maa ngi nekk sama wax ñaata dollar dollar hazal kitaab bi la téere fi hazal kitaab nekk na ci bile téere nga wax jox na la ñaari zéro ak benn an nga ne safaatal ay page dégg bi kam hazihi al-aqibat ñaata lay saag bi di jar hiya moom mu jox la ñaari zéro ak benn an waxal nangam riyaal riyaal dégg أنا في هذه الكوب في في هذه كلية nekk si biir école yi ñu jox na la ñaari zéro ak benn a nga ne taalibe taalibe meneen Pakistan bu jógee Pakistan dégg mu ne joxaat na la fii tamit ñaari zéro ak benn a waxal naka la ñuy waxe maanaam ñetti zero yi ak benn un ak ñaari zero yi ak benn un ne kawin formel jumlan jumla mustaamal ak jëfandikoo ak kalimaat atiya baat yi di mu ne zakiyun mooy fi aji ñëw yaa wutal jumla na jumla bi na dëppoo ak moom dégg nga lu mën a doon na doon jumla rek bu am njëriñ mais atu moom mooy téeméer ko jumla bu dëppoo ak moom mutazawijun boroom jëkkër boroom soxna kon wutal ko jumla azabun célibataire wutal ko jumla xulukun jikko wutal ko dolarun dolar wutal ko aji seer wutal ko jumla kalimat jadid baat yu bees moom mooy baat dafa jara takk zakiyun dañ ko firi ñaw jamoo bi askiya mooy ñaw ganiyun may kuris jamoo bi gabiyun ko daf jamoo bi axfiyaun ñu daf deng xuluxun jikko jamoo bi axlaaqun ay jikko mi'atun téeméer alfun mooy junni dolaariyun dola dool biyatun rubiyatun rubiya jamoo bi wobiyatun ay wobiya dégg mutazawijun borom jëkkër azabun célibataire jamono bi azabun ay célibataire yahudiyun yahud benn yahud jamono bi yahudun ay yahud dégg mu'jamun dictionnaire jamono bi mu'jamun ay dictionnaire dolarun dolar jamono bi dolaratun ay dolar dolaratun ay dolar safhat pass bi safha safahatun ay page najihun aji adme jamono bi najihuna aji adme dégg nga walin aji seer kam loxo mbubb jamono bi kum loxo mbubb jamono bi ak maamun ay loxo mbubb kon fii la darsu tey bi yem na jub ci Yàlla la waaye lu ci dëng ci ñun la ak xam-xam ak suñ néew gëstu إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته